salaamaaleykum mbokk internetu Sénégal tey jii ñu ngi fii euh, dalal monsieur Djibril Diop di président de parti Front pour euh, la République du Sénégal. Mm-hmm. noonu la. noonu la waaw. Euh, monsieur Diop ñu ngi lay sant di la gërëm ci sa teewaay bi ñu tàmbalee waxtaan bi ci wàllu préférence nationale maanaam taamu bi nga xam te nii yéen ndaw réew mi da taamu que ni lépp loo xam te nii ci wàllu économie la ñu jox ko doomu réew mi. Mm-hmm. oui maa ngi lay fay di nuyu borom kër gi di nuyu techniciens yi fii liggéey yëpp di nuyu Sénégalais yi ak sénégalaises yi di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi ak képp koo xam ne sénégalais nga bu yeewoo bitim réew euh, di commencer si bismillahi rahmaani rahim di kontaan lool si dalal bi ngeen ñu dalal euh, di la remercier si occasion yi ngeen ñuy may pour ñu mën di exprimer wu envers la population sénégalaise aussi ceux de, la diaspora waaw li nga wax sa question boobu lu am solo la parce que ñun en dehors de tout suñu socle ak tamit suñu vision dañ koo wékk si maanaam suñu cëslaay dañ ko dañ ko wékk si le nationalisme nag boo koy wax c'est pas que da ngay boot di ñeneen ñoo xam ne bitim réew lañ dëkk mais toujours li ëpp doole si loo xam ne moo war a yëngal sa économie loo xam ne moo mën a des ci sa réew boo ko deful si sa waa dëkk da ngay obligé di gën a jéggaani obliser sa alal di dem nga yor dëkk boo xam ne chaque fois si tàllal lay nekk waaye du doon ci loo xam ne ak jumtukaay yu yu mën a wékku pour dem moo tax ñu wax ni Sénégal fi mu toll nii ay doomam am nañ capacité yoo xam ne parce que bu dee jàng am na fi bu dee technique bi am na fi lépp looy wuti si àdduna am na ci biir réew mi kon bu ñu demee ba toll si wàllum économie ñu gis ni projet yi ëpp doole si Sénégal mais les grands chantiers yoo xam ne chaque fois ay autocritique da si am dañuy dem sax ba si tudd ay malversation nga xam ne préférence occidentale yi lañ koy jox muy lu mel ni France Turquie et les autres bàyyi au détriment des sénégalais yoo xam ne et des sénégalaises yi nekk si réew mi nga xam ne ci réew mi lañ tekkee màggee fi même bu ñu demee ba teg fi ay entreprise comme supposons tey mun naa wax ni le de cinquante pour cent nga xam ne Ablaye Sylla ak ñi mu àndal ñoo ko jiite nga xam ne société bi mu yor en tant que PDG d'une grande entreprise d'envergure boo xam ne montré na si wàllum BTP ci liggéey ak ñeneen ay moromam war nañ leen mën a gëstu mën leen jox marché yi ñu mën a compétir état bi war leen mën a jàppale ba mën a compétir au niveau international parce que boo xoolee euh, ce que les États-Unis fait boo gisee président américain buy voyager day voyager ak ses hommes d'affaires pour pour concrétiser le marché mondiale mais fii Sénégal rek ngay gis yow da ngay gis ay sociétés yoo xam ne comme le cas de Ecotra gis naa ak yeneen ak yeneen ñoo xam ne ils ont montré leur preuve au niveau de l'Afrique de l'Ouest bu dee tabax ak si assainissement am na luñ ci wane ba si yeneen domaines yi te dañ ne Sénégal actuellement économie va avec le social tey jii bu fekkee ne da nga jël say grands travaux nga ne carrément dama bëgg yóbbu si réew mi si croissance boo xam ne day nekk deux chiffres croissance boo xam ne dafay dafay revenir si population yi au contraire que croissance boobu dafay mujj traverse yi nga xam ne lépp li ngay joxe marché yooyu ñi siy gagné dëkk ñu fi dañuy mujj jilaat koom-koom boobu yóbbu seen maison mère yi seen i dëkk nga xam ne sa waa dëkk liñ ciy gagné sax as bu naan croissance ruusi tumuru kon bu ñu demee ba tollu foofu ñun dañuy jóg ne lañ daan wax si jamonoy ab Ablaye Wade moom la ñuy waxaat si jamonoy Macky Sall mënuñu fi nag bàyyi ay sénégalais yoo xam ne carrément créé nañ benn club même sax bu naan ay sénégalais parfois dafa am loo xam ne si code des marchés man yu si bëri dégg naa journal benn journaliste mu koy wax mu naan dañ ne préférence nationale bi mënul atteindre cent ou quelques kilomètres kilomètres yu ñu mën a defar. man leen non parce que dañ leen testé wul si loolu parce que am na yenn travaux yu mu def si Ila Touba am na ay travaux yu mu def si wàllum assainissement au niveau de Touba ak yeneen entreprise sénégalais yoo xam ne ñi ngi fi mais souvent dañuy préférer jox ko les nation les inter yeneen entreprise étrangères yi ba pare bëgg nag entreprise étrangère yi sous sous-traitance te sous-traitance boobu du permettre entreprise yenn yoo xam ne duñ si dugg te ñoom li ñuy def sénégalais yi mën nañ ko sëñ bi Diop bul fàtte nii euh, daanaka ci wàllu wàllu koom-koom. Mhm. Euh, Sénégalais xarañ nañ trop. Mhm. waaye tam ci wàllu koom-koom euh, bitim waa bitim réew ñoo ëpp ci li nga xam te moom la ñuy joxe xaalis. Mhm. ci waa ci cadre ndimbal ci Sénégal te. waa bitim réew yooyu ñu joxe ci exemple France par exemple. France seen président bu fi ñëw. day ànd ak comme ni koy waxee ay directeur société yu bari. kon ñoo xam ne dañuy dañuy wax def ci wàllu napp. ñu def ci wàllu càmm ñuy def ci wàllu euh, tabax ay tali. léegi bu ñëwee nag léegi léegi dañ leen di dimbali. xaalis euh, ba ngeen defar autoroute maanaam ndakaaru ba ba Tëngéej. Mhm. mais su ko la xaalis bi wala euh, da ngeen koy jox dañ koy liggéey bi. dañ koy jox société bi nga xam ne te mooy société française yi mhm. nga xam ne ñoom aussi mañ màcc nañu ci wàllu tabax tali mhm. parce que ñoom tam bu ñu dugal seen xaalis dañ koy conditionné mhm. léegi nag yéen condition boobu nag ngeen bëgg a gi indi fi préférence nationale cinquante pour cent maanaam ak ku ku ñu mën a jox ndimbal ak fu mu mën a jóge liggéey bu ñu mën a am am nañu ay doomu réew mi doomu Sénégal yu xarañ ci wàllu wépp nag moo xam koom-koom moo xam tabax tali moo xam wàll woo woo tudd rek. Mm-hmm. am nañ ay doomu réew yoo xam ne xarañ nañu ci ci mbir moomu. Mm-hmm. ñu jël cinquante pour cent ci marché yi. jox leen jox ko Sénégalais bi. Mm-hmm. beneen cinquante pour cent ñu séddale ko doxandee bi ñu xam te ni ci réew mi. loolu ngeen di prôné. am ngeen yaakaar que ne loolu euh, sunu nguur gi am nañu sañ boobu wala am nañu mën-mën xam nga tey dafa am leen loo xam ne gis nga chaque fois dama ko wax dama daan la complexité ak complexe bi daal sunu sunu njiit yi mooy d'abord que parfois dama naan lu rôle. bu ñuy dem tey jii di laaj réew préférence nationale la ñuy wax bu ñuy accès si pouvoir bi toujours dafay mel ni dafa am leneen lu ñu leen di dicté. te te te d' abord maanaam ñoom. exactement campagne électorale li ñuy dikk li ñuy euh, réew mi ak la ñuy def mooy ñii tey mooy ñii tey man dama mënul gëm Sénégalu euh, vingt unième siècle Sénégal boo xam ne xarañte yi technologie boo koy wax ak lépp fépp bépp domaine booy wax Sénégal yaa ngi si mu am ay sénégalais yoo xam ne bu dee jàng jàng nañ même sax jàng bi kenn basé wu ko rek si français bi nga nekk ak si yeneen domaines yi bu dee métier am nañ ko mais bu fekkee ne yow en tan que yow le grand chef nga ne da bëgg prôner pour le développement économique de votre que nous n'avons pas de problème de croissance nous avons un problème de développement pour le développe waaw pour ñu mën a développer développer suñu économie d'abord humain bi la ñu war a njëkk a mooy sénégalais bi ci boppam mais bu fekkee ne yow da nga ne carrément danga nga bëgg ñoŋal sa économie bopp léegi nga yow nga auto choisir koo xam ne moom buy ñëw day indi day d' abord danaan la si ndimbal te ndimbal amu fa parce que d' abord xoolal ñoom bu ñu ñëwee li ñuy investir nañ xool pourcentage yi ak taux yi taux d' endettement ak tamit ñoom taux bi bu ñuy fay Sénégal ñaata lay fay par at ci bor. est du ndimbal parce que d' abord kii ñëw ne dama lay dimbali te au contraire que moom bu ñëwee. da dafa mel sax da lay utiliser parce que méthode d'esclavage lay def. parce que buy ñëw moom expert moom day ñëw. ne la xaalisam la bu ñëwee tuuti la fi indi ba pare utiliser say doomu réew benn dafay réduire bu tey jii chantier boobu tey jii ñoom ñi gagné si autoroute waroon na jël tey cent personnes ou bu ñëwee di koy réduire bu ñëwee day day obligé moom ay experts am lay indi du def sax transfert de com de de technologie. parce que ñun mooy boo xoolee chantier yi gars yi di gagné yëpp ak marché yi ñuy muy terre muy yéen du si gis damay poser question est-ce que dina am transfert de technologie ndax bu ñu paree tubaab yooyu gañe ko bu ñu paree est-ce que sénégalais yi dina mën a jël teer bi yóbbu ko et pourtant que y a des sénégalais yoo xam ne buñ leen joxoon terre bi mën nañ ko développer parce que boo demee si structure yi nekk en Europe ay Aston da nga fay trouver ay sénégalais yoo xam ne souvent sax c'est des africains c'est des sénégalais. mais d'abord mais ñàkk wuul exactement ñoo koy dawal non non train xam nga dawal train ak tamit bu paanee nga defar ko bokkul parce que ñoom bu ñu ñëwee conditions yi lay teg mooy heure bu paanee ñoom ñoo la ko pièce de recharge yi sax ñoo la koy def duñ la may sax foo ko defaree mais da ngay permettre pour léegi nga mën a defar loolu comme ni chinois yi def mooy d'abord technologie boobu dañuy fexe ba mu des fi fexe nag suñu doomu réew yi nag dañuy fexe jànga ñu jàngaani loolu waaye dañuy préférer ñoo xam ne jot nañoo yor entreprise yu mel noonu nu leen état bi di doole nii parce que ñoom seen i état dañuy accompagner seen i homme d'affaires si financement mooy comme Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade exactement bi fi implanté Tata waaw dafa leen ne di tabax fii usine usine mhm. doomu réew mi jàng am ci xarañte boo xam ni waaw bu bu Tata soxlaa pièce duñu woo duñu dem ba Inde exactement mais tey jii si wàllum autoroute man defe naa Sénégal toll na foo xam ne waratuñu jéegaani ku ñu defaral ay autoroute peut-être que li gars yi doon wax moo si nekk si marché yi kon am na lu si xew wala poosu ñenn ñi la bëgg a jëm parce que tey jii bu dee sénégalais nga ko jox ak Sénégal et puis ce qui est grave mooy supposons ñu jox la deux kilomètres de nga war ko defee ñu ne un kilomètre de route ça deux milliards marché bi ñëw particulier yi si topp pour nga jot marché sax au Sénégal dafa am looy neexalaate c'est-à-dire que y a maintenant bu fekkee ne yow am nga say doomu réew nga ne yow carrément fu prônez le nationalisme comme ce que font les chinois mooy chinois boppam lay xalaatal doogay ñëw te yow ñooñu di fi ñëw sa lekk sax am na nu muy demee duñ ko utiliser seen i oto duñ utiliser sa dara mais pour nag réew mi mën a jëm kanam man lu may wax mooy club bi man dama doon bu njëkk dama daan ŋàññi euh, le privé national mais comme dem nañ ñoom ba teg seen i kuréel ba proposer à parce que am nañ si expérience plus de am na ñoo xam ne am nañ si cinquante ans am ñu si am dix ans am ñu si am cinq am entreprise yoo xam ne commencé nañ wane seen preuve entreprise yooyu wane seen preuve et des hommes d'affaires parce que man je kenn parce que mooy diriger loolu muy mu mu mu moo initier loolu avec des hommes d'affaires comme le cas de Ablaye Sylla ñu mel noonu nag Sénégal def leen war a jàppale dooleel leen yokku homme d' yeneen homme d'affaires créé leen parce que président bi waratul voyager sax di dem fenn te war yób warul yóbbaale ñooñu premier chose mooy d' abord ces chantiers yi muy def tey BRT bi tey liñ siy def lépp lépp lépp mais Necotrans mënoon na ko defar munoon na defar benn parce que autoroute la am na si expertise ak ay pont. yeneen si si assainissement bi na ko am na. non alal bu ko defar. non xam nga dañ naan déedéet dañ naan coopération non attends xam nga parfois dañ naan coopération coopération mais dessous de table yi doo ko xam. c'est-à-dire que toutes les entreprises yoo xam ne dañu codé au bourses parce que ne ko euh, si la ak ñim àndal si Afrique de l'Ouest a nekk mënuñu gagné ay marché Niger gagné ba Dubaï. te mu mënuñu ñëw nag Sénégal am indi koppar parce que ils ont des banques yu leen accompagne neel kay Sénégalais bi mu bëggul moromam avancé bëgg keneen avancé ba pare bu ñu jógee di wax ay croissance croissance nag ruus tumburu boobu lañ bëgg mu deñ Sénégal pour mu deñ nag mooy permettre aux sociétés sénégalaises mooy ñu mel ni ay nekk Ecotra ak yeneen structures yi ñuy gagné marché te ñoom bu ñu gagné marché yi day doon garantie Sénégal parce que xaalis bi du génn mm. parce que day desaat dina mën a permettre expertise bi am formation jeunes yi am état bi tamit accompagner leen ne leen kat comme yéen ay sénégalais nga bëgg nañ ci biir ah, noonu ngeen def ngeen di former jeunes yi ngeen leen di jël parce que mun lañ joxee marché yi route yu muy jaar man dama waxoon ne expertise locale bi mi ngi commencé si ñoom ñu jox leen test ñu jox leen doole buñ leen joxee doole dina mën a permettre jeunes yi nekk tey jii le taux de chômage est excessif dafa bari entreprise yi gagné muy BRT bi li ñu si doon wax si nombre d' emploi amu ko parce que chinois yi ñëw seen xaalis duñu xalaat mukk réduire ko si ay emploi créer des emplois duñ ko xalaat. mais xale ba léegi ñu nekk ci BT bi. mais mais mais ay su mais yi ñuy liggéey est-ce que bu doon Sénégal dina leen ko def. ñoom nee nañu pratiquement li liggéeyu jaam lañ fay. mais liggéeyu jaam lañ fay liggéey un deux trois amuñu dara est-ce que sénégalais bi comme ñoom dina leen def noonu c'est yooyu yëpp mi ngi si parce que man gëmatuma si Sénégal war na tabax nag des kilomètres de route. te sénégalais yi gagné nañ ko waratuñ tabax stade di ko jox ay turc te sénégalais yi participé wuñ ci waratuñ fi waratuñ fi def ay taux d'assainissement te sénégalais yi participé ci moo tax may wax ni c'est le moment que tous les leaders politiques ak noonu seen i projet ak seen yooyu ñu boole si carrément le privé national et puis dafa war a dafa war a nekk loo xam ne lu ñuy saxal la muy président bi waratul dem di def ay ay ay ay ay ay voyages visite officielle dans des pays te yu wu leen bu njëkkoon de loolu mooy euh, bu njëkkoon Senghor daan na def fu mu daan dem daan yóbbu euh, euh, groupe théâtral dañuy Sorano mhm. ay ñoom Juma Jeng Jeng pour jaay Sénégal ci ci mhm. la sur le plan culturel mhm. mais ñun suñu njiitu réew bi ñu mujj nii ah pour ñu jël fi suñu ay ay ay chef d'entreprise ñoo xam ci wàllu batiment wala ci wàllu PBTP waa xam ci wàll lu mën a doon génn ak ñoom fàttaliku ma ko wala xëy na bu am yëgu ko wala tam bariwul mais est-ce que tam club d'investisseurs yi bëri nañu Sénégal mën nañu mat ñett ba ñeent xaw ma. waaw mais est-ce que yaakaar ngeen ni seen préférence na mouvement préférence nationale 50 pour cent yi dina am ndam. non buñ dana mën na am ndam parce que lépp sa dépend si état bi. bu bu yë ça dépend ça dépend xam nga bu fekkee ne bu fekkee ne code des marchés dañ ko dural ba entreprise yi duñu am après ñu ñu am benn kii bu doy waar mooy pour accès si offre yi parce que dañ naan la cahier de charge bi lii la nga remplir lépp ñëw ba pare ñu def sélection yi souvent yow sénégalais bi. mun nga remplir yëpp souvent dañuy def beneen préférence par rapport au Sénégalais wala ñu jékki-jékki di saboter entreprise yu sénégal yi naan non di leen ji non. dañ nekk si mooy d' abord naan amu ñu expertise bi amuñu lii le code a dit ak loolu tuuti leen ñàkk leen fayda léegi indi def nag permettre bu buy am souvent da ngay gis ñu def benn dañuy organiser benn visite d' affaires beneen président bu ñëw wala visite officielle bu ñëwee non ñu jël. surtout nag les journalistes am nañ ci part de responsabilité surtout ceux qui ñu évoluer si si si si si si si si domaine économie parce que journalistes yi war nañ mën a puiser jaay tamit suñu suñu homme d'affaires yooyu def ak ñoom ay plateau technique dem def ay public reportage si li liggéey parce que les entreprises étrangères loolu la ñuy def mooy dañuy def ay public reportage wan ni fii lañ toll même bu ñu daanoo sax doo xam ne daan na mais fii da ngay gis ay entreprises yoo xam ne ils ont montré capacité te te moo xaar la leen entreprises nationaux yi li ñu ëppee sens ak solo dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bañ ne ñun préférence nationale mooy seen dërëm du génn gaal te day contribuer si wàllum social. tey jii le cas euh, man de tout temps sax Ablaye Sylla miinuma ko mais dama def ay recherche musuñu toog xaw ma ko gisuma ko mais dama def ay recherche su moom gis euh, bi mu le mouridisme di tabax ju jumaay Masalikul Jinaan ce qu'il a fait au niveau de Touba l'assainissement au niveau du Sénégal au niveau de certains secteurs yoo xam ne damay gis ni ñu siy duggee ñoom. les projet yi ñuy yor mais toujours dem nañ sax ba ñoom ba ñoom sax damay dégg seen biir ñu ne ñoom projet sax yi ñuy gagné ñoom dañuy obligé di leen xeex te ñi leen di xeex mooy doomu réew mi parce que dañuy am ay dessous yoo xam ne dañ koy am parce que dañ naan non homme la bu fi tollee nii suñu esprit yooyu fee la jëm wala dina laaj réew mi au contraire que kooku dina mën a permettre des milliers de jeunes ñu liggéey dina mën a permettre des pères de famille ñu mën a parce que benn Sénégal rek ngay ñëw li indi problème yi di am Sénégal et Afrique rek ngay gis nit liggéey ba retraité di daw yi dépense mais il faut que condition clivage bi il faut que ñu yombalal accompagner parce que moo wax la benn affaire boo gisee euh, occidentaux yi seen entreprise yi am doole parce que seeni état de leen di accompagner doone gars yi amuñu banque si l'état veut accompagner les hommes d'affaires sénégalais mun na leen accompagner hommes d'affaires sénégalais ñoo nekk Niger Abdoulaye Sylla ma nga Niger ñoom souvent ñoo nekk Côte d'Ivoire souvent ñooy dem ba Gabon souvent ñooy dem ba Dubaï te fii seen dëkk bu ñëwee duñ fi am dara bu ñu au contraire bu ñu defee discours bu état bi defee discours wax yenn yoo xam ne yow sa bopp sax da ngay mujj da ngay mujj xeeb sa bopp léegi nag complexe boobu la ñu war a dindi si Afrique dindi ko dindi ko si Sénégal pour dindi ko si Sénégal mooy fexe ba suñu homme d'affaires yi ñoom am doole entreprise entreprise sénégalais ñu bañ ko rey parce que souvent entreprise mënoo yor entreprise bëgg ñu jël loolu ay milliers de personnes te mënoo gagné marché foo foo defee résultat et bu dara amee si réew mi ñu ne non non non ñi doomu réew moo xam ne am nañ koom-koom ñi ngi liggéey si ñu war a contribuer où sont les entreprises étrangères boobaa dañuy lem seen bagage notre éco tey jii suñu économie bi tey jii li ñuy wax ay 6 pour cent taux de 6 pour cent mais kan moo si bénéficier c' est les turcs c' est les français c' les chinois c' les américains parce que ñoo nekk secteur yëpp bu ñu jógee nan naan sénégalais yi sénégalais yi kenn gënu leen xarañ lan mooy expertise bi accompagner leen dimbali leen ñu mën a ñoom it ci biir entreprise yi mën a former les jeunes jël jeunes yi parce que d' abord l' mu am da ngay am secteur privé national bu am doole mën a accessible ci marché am ay pan bu ñu amul pan nag pour ñu mën a ñun suñu économie mën a ñoom pour Sénégalais gis seen bopp ci seen réew day jafe ñeneen ñu si gis seen bopp te foofu nag moo tax ñun ñu ne tey jii ñoom sax dañ ne pour cent mais dafa war am système de parrainage au Sénégal mooy bépp entreprise étrangère boo xam ne da ngay ñëw fii di marché di def marché les 55 pour cent revient aux Sénégalais les 45 ou 40 pour cent ñëw leen dina mën a permettre Sénégalais ñu mën a gëm seen bopp muy si technologie mën a gëm seen bopp si domaine BTP mën a gëm seen bopp mën na si agriculture bi mën nañoo yóbbu seen i réew mais da ngay gis sax ñu évoluer dans le domaine de l' agriculture ils ont de sérieux problèmes.